républicain soit respecté loolu la ñu koy wax Macky Sall dafa fekk état du Sénégal nekk nii état du Sénégal nii la koy bàyyi donc aujourd'hui tout le monde est déterminé pour ñu continuer le combat mobiliser wu encore continuer la campagne électorale dañu waxanteeg sénégalais yi ba pare et que le 2 avril le président Macky Sall dootul nekk président du Sénégal ah donc encore que la campagne continue que ñu mobiliser wu dans les régions dans les communes dans les départements pour dire halte ça suffit les sénégalais sont fatigués les femmes sont fatiguées les jeunes sont fatigués sunu géej gi sunu géej gi ay cimetière la sunu désert bi ay cimetière la et cette situation ne peut j'en appelle, j'en appelle à l'intelligence des députés. J'en appelle à l'intelligence des députés. Le 23 juin, Yagoul, nous sommes les vrais représentants de la population et des Sénégalais. Donc les Sénégalais sont fatigués, cela ne peut pas continuer. Ben casse de politiciens, nous continuer de faire ce que nous Une question géopolitique, le ah. de la République. Et président de la république les citoyens la war a déglu maa ngi leen di gërëm de. citoyens la yi a tagal nañ ko ko lu ñu am jël dinañ dem bu bout lépp lu mu laaj ñu ko def ñun mënuñu nangu Macky Sall dépp bi mu toogee bi mu jëlee réew mi 2012 ak léegi obstacle yu fi jaar yëpp amul benn boo xamante ni taxaw nañu assemblée nationale ne dinañ yëkkati commission d'enquête enquête parlementaire pour xeex li ni mel mosu fi am. dossier ArcelorMittal fii la jaar amul commission d'enquête parlementaire barki de mondial gestion Covid 19 fii a jaar Africa Frank Timis ak lépp lu scandale loo xam ne jaar na fi moo xam côté financière wala côté côté domaine fi euh, éducation ak lu mu mën a doon lépp amul dara loo xamante ni sénégalais yi jooy nañ ko ci kanamu sénégalais yi jooy nañ ko ci kanam Macky Sall ba mu jël ci ay matuwaay ci war mosul am tey xam na ne amul candidat bu baax bu mën a gagner opposition sénégalaise xam na ni dem élection moo tee les patriotes jël réew mi mu ne day reporter élection yi loolu lañ dul nangu lépp lu mu laaj nag dinañ ko def. dinañ dem jusqu'au bout le combat sa nekk ta démarré. merci beaucoup.